suratu isra suratul isra ay juróom fukk fi sunu borom di waxe ni qul kunu xijaratan aw xadida alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant sunu borom waaye di ko ñaan mu julli ci sunu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi mu yónni woon mu nekk di ñu bégal waaye itamit nekkoon di ñu xupp bokk na ci loo xame ne nii daana ko bégal ay saxaabaam mooy ndax kenn ci yéen du jóge fii dem bu doon tey parcelle la mën na wax nga dem fii Padois rek ñu may ko fa benn gileemu tukkal bu mag mu am ko ci ànd ak benn bàkkaar ñu ne ko ay yow mi yàlla yónni loolu kay ñun ñëpp bëgg nañ ko mu ne ndax kenn du dem ñu may ko ñaar mu ne ah loolu ñun ñëpp kay bëgg nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ci yéen day jóge woon këram dem ca néegu yàlla ba jàng fa benn ayab alquran moo gënoon ci moom bu doon tey la ñuy wax nga jóge fii dem ci padwa gi ñu jox la fa benn kat-kat nga demoon ca jàkka ja jàng fa benn aaya moo ko gën ci yow su doon xam nga kon incha allah ñu ngi nar a jàng téere borom bi yal na yàlla nangul ñu ko
qul kunu xijaaratan aw xadiida أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا
سنبرهم سبحانه وتعالى yéeféer yi waxoon nañ yonentub yàlla bi ndax su dee dañoo dee ba doon ay yax doon ay poussière daan ñu génne ci beneen façon mbindaa fon sunu boroom nag ne ko auzu billahi min alsheytaan arrajim qul kunu xijaaratan aw xadida nee leen bu ngeen deeyee soppaliku leen ay xeer wala ngeen soppilu ko weñ aw xalqa mimma yakbaru fi sudurikum wala boog mbindaafon ci loo xam ne dana màgg ci seen dënn yi fa sa yaquluuna man yuiduna bu keroogee xel sa nañ laa wax waaw kan moo ñuy delloo ñu nekkaat ay nit qul illadi fatarakum awwala marra tontu leen ne ka nga xam ne moo leen bindi moo leen bindoon ca njëlbéen ga fa sa yungiduuna ilayka ruusahum xel sa nañoo yëngal jëme ci yow seen bopp ya wa yaquluuna mataahu gannaaw bu ñu ne waaw loolu kañ lay doon qul asa an yakuna qariba nee leen mën na doon mu nekk lu jege lool yawma yad'ukum fa tastajibuuna bi hamdi bis bi mu leen di woo ay seen boroom dangeen ko wuyu wuyu gu ànd ak di ko sant wa tazunnuuna in labistum illa qalila ba këroogee da ngeen jort ne saxuleen woon ci àdduna lu dul lu néew wa qul li ibaadi yaqulu lati hiya ahsan yow yonent bi nag waxal samay jaam yi ma gëm ñuy wax te nam gën a rafete inna sheytaana yanzaxu baynahum ndax cheytaane day day jaxase seen diggante inna cheytaana kaana lil insaani aduwan mubina cheytaane nekk na ci doomu aadama noon boo xam ne noon bu bir la rabbukum aalamu bikum seen borom yàlla nag moo gën a xam ci yéen in yasha yarhamkum su ko neexee mu yërëm leen aw in yasha yuazibukum wala su ko neexee mu mbugal leen wa ma arsalnaaka alayhim wakila amma yow yonent bi nag yónniw ma la nga doon koo xam ni yaa leen di garantir ay di wakkirlu seeni mbir mbokk gis nañu ne yonent yàlla yi bokkoon na li gënoon a màgg yi ñu juyoo woon ak seeni xeet mooy benn yàlla kenn la loolu juyoo bu rëy la woon ñaareel bi yàllaa ngi wax ak ñoom muy nubuwa gi waaye bokkoon na ñetteel ba it mooy gëm allaaxira looloo tax lu bari ci téereb yàlla bi sunu borom di lënkale man kaana yuminu billahi wal yawmil axir nga xam ne mooy ponk yi gën a màgg ci ngëm ñoom nag bokk na luñ doon àtte woo mooy seen xalaat te mbokk diine du xalaat diine mooy jébbalul sa borom subhanahu wa taala gëm ni lu mu wax noonu la ndax mooy ki nga xam ni ala kulli shay'in qadir loolu tax bokk na lu ñu daan tontu yonent yi mooy ñun bu ñu deeyee dañu nekk poussière na am man nga ci def expérience man nga mbokk bu dee léegi nga suul ko ci armeel yi nga toogaat quelque temps même pas léeg-léeg suuf bi ça dépend mën nga toog ñetti at dem gasaat doo gis dara loolu itamit d'ailleurs benn bind la booy jëkk a jàng yow dulit ne noonu la yaram bii ngay toppatoo guddi ak bëccëg bokk na li gën a am solo mooy toppatoo la nga xam ne moo lay xaar àllaaxira ndax yaram bi ci poussière lay mujj léegi nag kon bu ñu nekkee poussière ana kan moo ñuy dolliwaat ñu nekk nit sunu borom avant muy tontu daf leen ni waxumaa ngeen doon nekk poussière te mooy suuf te xam ngeen suuf sunu borom nee na mooy sunu cosaan. minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taratan uxra ci suuf laa leen binde ci ngeen génne waaye waxuma sax ngeen nekk suuf waaye bu leen neexee bu ngeen dee soppiliku leen xeer yi woo koŋ wala ngeen soppiliku ay barre de fer su boobaa ñoom dañ la laaj ne la waaw ana kan moo ñuy delloowaat ñu nekk nit te loolu da ngay gis ni kii di yéeféer bu bon ba di Nadr ibnu Haris dem na ca armeel ya jël fa benn bopp nit ñëw dóoru ko ci kanamu yonent bi alayhi salaam ci kaaba gi mu def poussière mu ne ko waaw yow yonent bi seen borom di ko nettali ca yaasin mooy wa daraba lana masalan wa nasiya xalqahu qaala man yuxyi al izama wa hiya ramim xoolal doomu aadama bii di ñu dóor misaal ma nga fàtte na ko yàlla bindee naan kuy dekkal ay yax fekk mokk na sunu borom lu mu ca tontu qul yuxyiha allazi anshaaha awwala marra neel ki koy dekkal mooy ka ko sosoon ca njëlbeen fii it sunu borom ni ah nee leen ka ka defaroon bu jëkk moo koy delloowaat te yow mi am xel loolu wura ci sikk sàkka même ñi gëmul yàlla ñu ne benn philosophe jullit dafa dajeeg benn philosophe athée léegi athée bi ne ko waaw yow naka ngeen di gëmee allaaxira mu ne ko waaw lu tax mënuñu ko gëm mu ne ko xam ngeen ne lii lépp par hasard rek la am dund gépp par hasard la am naka ngeen di gëmee allaaxira mu ne ko waaw est-ce que hasard bi amal àdduna hasard boobu mënul amal allaaxira fa buhita lazi kafar waa ji xamatul lu muy tontu ah maadaama gëm nga ne hasard moo indi lii pourquoi nga ñàkk gëm ne hasard boobu mën na indi alaxira loolu la kenn ci mag ñi am na benn waay bu naan ko bu mu doon laaj waaw ku bind asamaan yi mu ne ko hasard par hasard waaw géej gi nag lu ko fi tàllal par hasard waaw gàncax gi lu ko indil par hasard bàyyi bàyyi léegi ñu ñëpp par hasard mu ne ko kon ne hasard ci turu yàlla la bokk gis ngeen jeex na hasard ci turu yàlla la bokk loolee kon mbokk ka nga xamee ne moo leen di delloowaat ngeen nekkaat nit mooy ka nga xam ne moo leen bindal bu njëkk lii nag soo ko waxee xel sa nañoo loo yëngal seen bopp daa dina waaw d'accord d'accord wax nga dëgg wax nga dëgg waaye nag loolu kañ lay doon bañ ko fi da lay wax yàgg na kañ lay doon sunu borom ne mën na am lii mu doon lu jege lool te mbokk loolu ñaari jege la benn jege bi mooy sunu yonent muhammad alayhi salaam moom la yàlla mujj yónni ci yonent nee woon na ana wa saaka hatayni sama diggante ak bisu penc dafa mel ne ñaari baaraam yi dañuy sutante ay li ci des bariwul par rapport ak li jàll ci àdduna doonte ne loolu mën a woon bariwul ah junni at ak ñeenti téeméer wàññeeku na ci loolu nag du tax abadan ñu xam kañ li bis penc di taxaw loolu mooy dig bu général bi beneen dig bi mooy jullit bi xellu du fi nekk di lijjanti kañ la bisu penc di am xamul lu muy lijjanti moom kañ la bisu pencam di taxaw te ku dee si bisu penc commencé na doomu aadama bisu pencam mi ngi commencé ci lal bi mu deeyee foofee la bisu pencam di commencé te loolu mbokk mën na mu jege lool ak bari waaju reer ba suur waxtaan ak njabootam waxtu woowu mu doon reer ci ëllëg sa mi nga fekk ci biir bàmmeel ak bari kon mën na am ne loolu lu jege la te it loolu mbokk si dafa valable ci képp kenn ci ñun amul kenn ku mën a assurer ni li nga xamee ni nii mooy heure bii suba dana la fekk kaw suuf kan moo ko mën a assurer kenn mënu ko assurer loolu moo tax ba mbokk lépp looy xëccu ci àdduna war nga ci sóoraale bis ba ngay dajeeg sa borom jalla wa ala asa an yakuna qariba borom bi nag teg ci ni bis a ngi ñëw doomu aadama yépp faatu sunu yonent alayhi salaam nee na yàlla dana jël ruux yi def ci béjjanu israfil mu daal di koy ëf sunu borom ne maa ngi giñ sama màggaay ak sama teddaange ruux gu ne na dellu ci jëmmam fekk yàlla defar na jëmm yi ci biir suuf su ko defee ruux yi tasaaroo ñii jaar Amérique ñii jaar Sénégal ñii jaar Pologne dugg ci biir mbindaa fa ni doomu aadama yi yàlla bindoon xatta bàyyuma yi ñépp dañuy dekki su ko defee borom bi yàlla subhanahu wa taala daal di ne woote e yéen samay jaam jóg leen te moom la borom bi ndax yow ma yadu uddaai ila shay'in nukur su ko regee mboolem nit ak jinne dañuy jóg lu ñuy wax subhanaka allahumma bihamdik sell ñeel na la sunu borom ñi ngi lay tudd sa sell ànd ak di la sant tey nag bu la neexee weddi yàlla waaye kuy dekk yaa ngi dekkaale sabbal sa borom ak sant sa borom fa tastajibuuna bi xamdihi te bu keroogee bu ngeen xalaatee da ngeen di gis ne saxu leen ci kaw suuf lu dul lu tuuti mbokk nañu xam ne dundug àdduna dafa tuuti lool dafa tuuti lool boo jëlee rek misaal sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam moom ki saxaabaam am nañ ci bàmmeel léegi junni at ak ñeenti téeméer te yonent boobu borom dund gu màgg gu tedd googu ñaata la def ci kaw suuf mooy juróom benn fukki at ak ñett te xoolal juróom benn fukki at ak ñett par rapport ak junni at ak ñeenti téeméer waxuma sax lii xew alaxira mais diggante barzaq ak àdduna rek boo koy méngale da ngay gis ne àdduna dafa doon loo xam ne nii lu tuuti la sunu borom subhanahu wa taala kon daa di bàyyi loolu wëlbatiku waat ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam samay jaam wax leen ñuy wax nam gën a rafete boo demee ci bani israil borom bi da leen digaloon ne waqulu linnaasi xusna na ngeen digal nit ñi la nga xam ne mooy rafet la gën a rafet fii it borom bi neen ahsan la gën a rafet mbokk mbaaxug doomu aadama mi ngi commencé ci ay waxam yaa ayuha alladina amanu ittaqu llaha wa qulu qawlan sadida yuslix lakum amalakum wa yaxfir lakum zunubakum mooy wax bu sell bu rafet fan la commencé mooy kàddu tawxid samay jaam nañu wax la gën a rafet bu ñu bokkaale ak seen boroom wax ji gën a ñaaw buy génn ci doomu aadama mooy shirk wax ji gën a màgg buy génn ci doomu aadama mooy kàddu la ilaha illa allah gannaaw ba itamit nañu xool la rafet ci yàlla bëgg ko ci ay azkar ñu koy def la rafet ci digle lu baax la rafet ci teru lu bon ñu koy def waaye seen diggante it bu ñuy waxante nañu xool nam gën a rafete ñu waxe ñu waxe noonu lu waral loolu mooy léeg-léeg nga ba wax benn wax jubluwoo ci lu dul lu rafet waaye na nga ko waxe rafetul seytaane jël ko amplifier ko ci sa xolu mbokk jullit ba loolee jur ak noonoo seen diggante kon heure booy wax rafetalal say wax loolee mbokk sunu borom mu ne seytaane seen noonu la te bokk na lu ko gën a neex mooy diggante bu yàqu diggante bu yàqu bokk na day wër di wër adduna bi xawma fu mu toll yal na ko yàlla sëral Sénégal waaye mbokk seytaane deewugul de day wër di def inspection bu ñuy dal géej lay nekk bu ko defee armeem yi nekk ci dëkk bi ñëw ku ne di rendre compte man de diw maa ko topp ba ngay naan sangara diw maa ngi koy topp ma ngay njaaloo diw maa ngi koy topp day déglu rek ku ñëw nag na ko dii de topp naa ko ba teqale naa ko ak jabaram mu ne ko anta anta yow de yaay jàmbar waay diw ak diw de ay xarit la ñu woon dox naa seen diggante ba teqale naa leen mu ne ko anta anta yow de yaay jàmbar waay te mooy loolu da ngay gis ne dafay yàq yeneen ci baale salaam daana wax ne kaay ma wax leen li ëpp doole yi nawaafil ci koor nawaafil ci ay julli nawaafil ci sarxe lan yàlla yow mi yàlla yónni mun a may defarab diggante lu tax inna fasada zaatal bayni hiya alxaaliqa mooy defaree diggante bu yàqu ndax diggante bu yàqu loolu day yàq diine seytaane nag loolu la xam ba day profité ci wax nit ñi yàq ay diggante loolu it muy wone ne bokk na bàkkaar yi gën a garaaw mooy li ñuy tudde an na maam mooy ab diggante nga wax ca ba diggante ba yàqu loolu la yonent bi alei salaam ne ko mel nii du dugg aljanna borom boobu nag subhanahu wa taala bi mu waxee li ba pare mu ne seen boroom moo leen gën a xam gaa yi loo xam-xam sa doom yàlla la ko gën a xam loo xam-xam sa soxna yàlla la ko gën a xam waaye loo xam-xam sa bopp yàlla la gën a xam mi ngi noonu rabbukum aalamu bikum mu ne nag su ko neexee yërëm leen màndarga yërmandeem ba mooy lan yudxilu man yashaau fi rahmati yàlla mbokk màndarga yërëm na la mooy dalay déppale ak pas-pas bu sell ak jëf yu baax loolay wane ne mandarga da la yërëm amma bu ko neexee mbugal la ca may bu la sànkee nga safaanoo ak diineem su boobaa da lay mbugal donte ne it moom moo yor nguur gu sax adduna ak alaxira looloo tax même yonent yi alayhim salaam avant atte alaxira di jeex ba yàlla jox leen ne leen dem leen tàbbi àjjana ñoom ñépp dañu ànd ak tiit lu tax mooy sunu borom ku ko neex yërëm sunu borom ku ko neex mbugal looloo tax ñoom ñépp bu bis bañ ci taxawee dañ naan nafsi nafsi yàlla maa ngi lay ñaan sa bopp maa ngi lay ñaan sa bopp lii moo tax ba julit ñaari yii da koy boole fu mu mën a toll yaakaar yàlla subhanahu wa taala ak ay bàkkaaram lu mu bari bari waaye ragal yàlla subhanahu wa taala ak jaamu yàllaam lu mu bari bari xam ne sa borom yàlla mooy def lu ko neex yàlla na yàlla fegal ñu mbugalam te dugal ñu ci yërmaandeem وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا سنبرم جل وعلا مني وربك أعلم بمن في السماوات والأرض sa borom yàlla moo gën a xam ca ña nekk ci asamaan yi ak suuf wa laqad faddalna baad annabiyina ala baad ca gënaleen nañ lenn ca yonent ya ca kaw la ca des wa aatayna daawuda zabura jox nañ daawuda alayhi salaam téere boobu nga xam ne moo tudd zabur qul udu allazina zaamtum min duuni nee leen woo leen ñi ngeen foog gannaaw yàlla fala yamlikuuna kashfa durri ankum ñoom day amuñ moomuñu daa di dindi lor ci yéen wala taxwila wala di wëlbati lor googu yóbbu feneen ulaika alladina yad'uun ñoo ñee nga xam ne sax de nit ñi ña nga leen di woo yabtaxuuna ila rabbihim alwasila ñoom day ña ngay sàkku ca seen borom ay moyen ayyuhum aqrabu di xool ana kan muy gën a jege boromam wa yarjuuna rahmatahu ña ngay yaakaar yërmande yàlla wa yaxaafuuna azaba di ragal mbëggalum yàlla inna azaba rabbika kaana mahzura la nga xam ni sa mbëggalug borom day nekk na loo xam ni lu ñu war di moytu la ay lu ñu war di ragal la wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmi alqiyama amul benn dëkk lu dul ñun yàlla daañ ko alak avant yawm alqiyama aw muazibuha azaban shadida wala ñu mbugal ko mbugal moo xam ne mbugal mu tar la kaana zalika fi lkitaabi mastura loolu day nekkoon na ca téere borom ba di lahil mahfuz di loo xam ne lu ñu fa bindoon la mi ngi noonu mbokk sunu borom mu ne moom moo gën a xam ñi nekk ci kaw asamaan yi ak ñi nekk ci kaw suuf looloo tax ab jullit dafay am rafet njort ci mbokk jullitam waaye doo àtte jaamu yàlla yi diw jullit piir la jullit tigi la loolu des ko wax mbokk dañ naan diw day rafet na njort ci moom mi ngi noonu rafet na njort ci moom amma yàlla subhanahu wa taala moo rek moo xam ay jaamam sa borom yàlla moo gën a xam ay jaamam jaam yooyu ku nekk la ko neex la la jox bokk na ci ñi ñi gën a màgg ci ñoom mooy yonent yàlla yi te loolu it ngay gëm mbokk julit ku dul yonent yonent moo la gën ki gën ci xeet bi mooy abu bakarin sadiq ka gën a suufe ci yonent yi moo gën abu bakarin sadiq mooy mi ngi noonu yonent yooyu sunu borom subhanahu wa taala mu ne même ñoom da leen a gënale bokk na li borom xam-xam yi wax ña gën ci ñoom mooy ñu yàlla tudd seen tur ci téereb yàlla bi moom la borom bi ne minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk am na ñu mu la tuddal ñooñu di ñaar fukki yonent ak juróom ñoom ñoo ca gën ñoom ñaar fukki ak juróom yooyu ña ca gën moom lu ñu tudde ulul azmi min ar-rusul xam ne suñu borom tudd na ko ñaari yoon ci alquran mooy wa minka wa min nuuhin wa ibrahim wa muusa wa isa mooy juróomi yonent yooyu di suñu yonent muhammad alayhi salaam ibrahim muusa isa ak nuuh alayhi salaam ñii ñooy ñi gën donte ne ne ñoom ñëpp ka leen gën mooy sunu yonente muhammad alayhi salatu wasalaam nee na woon ana xayru wala di aadam wala faxar ana saydu wala di aadam wala faxar maa gën ci li aadama jur donte ne waxuma ko ngir puukari waaye loolu dañoo dafa doon lu ñu war a gëm mi ngi noonu laqad faddalna baada nabiyina ala baad borom bi nag mu ne moo joxoon daawuda zaboor te loolu it bokk na ci ngenee li mooy mu tuddal daawuda lam ko joxoon te daawuda alayhi salaam it nekkoon koo xam ne royukaay la woon ci jaamu yàlla comme ibrahim ni mu nekkoon royukaay ci tawxid sunu yonent alayhi salaam borom mi ne ko fattabi millata ibrahima xanifa noonu ci jaamu yàlla yonent bi alayhi salaam ne ne ki gënoon a bari jaamu yàlla ci kaw suuf mooy daawuda alayhi salaam moo nekkoon koo xam ne buur la woon mi ngi noonu ba pare nekk yoroon mbaarum tëggam di tëgg ay mbubb yu ñuy sol loole la daan dunde mu ni yonent bi alayhi salaam nee na daawuda musul lekk lu dul loo xam ne moo ko ñaq daawuda alayhi salaam da daan woor tey ëllëg mu dokk genn wàllu jamono da ko daan woor yonent bi ne kenn mënul def lu gën loolu rek la nga dégg ñoo xam ne dañuy dëkke koor loolu ñàkk xam la kenn mënul koor koor gu gën woor tey ëllëg nga dokk daawuda alayhi salaam nan la daan naafila da daan nelaw genn wàllu guddi gi taxaw ceer bi nelawaat sixième bi ànd ak nit ñi yeewu suba ay moom nit ñee tëddandoo moom nit ñee yeewandoo fekk ci digg bu digg la def ay nawaafilam mooy li ngeen di def fii ci qiyaamu layli yi moom noonu la saxe woon bu baa muy wuyu boroomam loolu lépp mu boole naafilam gu guddi googu kooram nga bëri googu ñaq mu daan ñaq ci loxoom sunu borom nee na yonent bi sam teg ci ne te bu mosaan di jihaat du daw ca muy jihaat kat bu mag la woon ba sunu borom netti lu ñu ne moo rey jaruuta di buur bu mag boobu sunu borom nag booleel ko ci loo xam ne joxu ko kenn ci ay jaamam muy baatam bu neex ba daawuda alayhi salaam mooy ki gënoon a neex baat ci li yàlla bind ki dàqoon a jàng alquran ci sahaaba yi mooy abu muusa al ashari yonente bi alayhi salaatu wassalaam daana guddi sax bis dem na di ko déglu ci këram muy jàng alquran bi ñu xëyee suba mu ne abi muusa ay waay waroon nga maa gis biig bi ma lay dégg ngay naafila mu ne sahaaba yi ah kii de yàlla may na ko benn buum ci buum yi yàlla mayoon daawuda alayhi salaam loolu lu muy firi mooy daawuda yàlla may na ko mën na yëkkati benn baat di wax ba ñëpp daanu bàyyi fa baat ba bu yëkkati beneen baat gis ngeen ah mooy corde vocale yi ko yàlla subhanahu wa taala mayoon daawuda alayhi salaam mi ngi noonu soo demee ci magi gàmmukat yi nee nañ Fatima buñ dajee àjjana day wax papaam. dama bëgg nga wax sunu borom mu wax daawuda mu jàngal ñu alquran gis ngeen ala kulli xaal mi ngi noonu naka moo daan jàng zabuur montagne yépp di ànd ak moom picc yépp bàyyi seen soxla ñëw wër ko di ànd ak moom cay bu doon jàngal alquran xaw ma nan lay demee gis ngeen wa atayna daawuda zabura sunu borom subhanahu wa taala nag mu ne ngan la waay woo leen ñi ngeen yaakaar ca du yàlla jibril alayhi salaam la muhammad alayhi salaam la waxumaa nag keneen ku dul ñoom waaye ku ngeen yaakaar ci da yàlla ñaar yi de mënu ko mënu laa teggi lor gannaaw ba mënul toxal lor bi di yóbbu ci keneen ca mbokk gaa yi heure bu ñuy jaamu xërëm la tax ñuy jaamu xërëm ya benn mooy am na lu ma yaakaar te loolee dafa nekk ak lor ñàkk la am feebar la am lu mu mën a doon suñu borom mu ne mënuñu ko ca mënuñu koo changer loolu muy benn kooku c'est général mu am beneen mbir nag bu amoon te loolu boo demee ci mufassiroon yi génn ko ahlul hadis it génn ko mooy dafa amoon ay jinne yoo xam ni nit ñi dañ leen yaakaaroon di leen woo jinne yooyu ñi ngi wëlbati ko ñoom tuub dugg ci lislaam nit ñi nag xamuñu ne jinne yi tuub nañu heure bu ñu jàqee woo jinne yooyu te jinne yooyu ñoom tuuboon nañu moo tax sunu borom mu ne ñooñu ñuy woo di leen bokkaale day ñoom ña ngay yaakaar jege seen borom ana kan muy gën a jege bu dul jinne yooyu di benn malaaka yi wala yonent ci yàlla yi am na ñuy woo Isa am na ñuy woo Mariam tey jii boo demoon ci catholique yi des fois dañu naan la à quel saint se vouer comme tey boo ñëwoon ci l'islam ni ñu toppee catholique yi ca mooy ku nekk jël nga sëb sëriñ la nga waroon a woowe yàlla moom nga koy woowe te sunu borom subhanahu wa taala dogal na lu ëpp ci sëriñ soosee da ngay gis ne ah ñi ngi doon góor-góorlu pour jege seen borom ayuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yaxaafuuna azaba yow kii nga bëgg mu fegal la mbugalu yàlla moom mi ngi ragal mbugalu yàlla kii nga bëgg mu jox la xiiwalu yàlla moom mi ngi yaakaar xiiwalu yàlla ah wala fii dañ naan kuy jooy di siim cereem kenn du ko ñaanum ñeex am déet boo ko ñaari mu ne la doyal yow tamit am déet gis ngeen su ko defee kon loolu day wone ne mbokk jullit amul wala fii dañ ne koo yaakaar yàlla la yaakaar loolu rek muy dëkk su ko defee yow fexeel ba roy ñooñu te bañ a jël sa yaakaar di ko teg ci keneen ku dul yàlla noo leen di royee mooy li yàlla wax mooy ayuhum aqrab yarjuna rahmata wa yaxaafuna azaba doomu aadama bu jëm ci yàlla ñu ne daa mel ni picc buy naaw bopp bi mooy bëgg gim bëgg yàlla di jéem a jege yàlla ca loolu la ca gën a màgg mooy farata yi di loolu la yàlla wax day ci laa mi yonent bi maa taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi sama jaam jegewu ma li ma gën a bëgg li ma farataal ci moom waaye gannaaw loolu nag nga boole benn laaf bi mooy lan alxawf ragal mbëggalu yàlla waaye benn bi mooy leen ar raja yaakaar yërmaande yàlla loolu la borom bi tagge woon gaa yuy jëkk ya innahum kaanu yusaari'uuna fi lxayraat wa yad'uunana rahaban wa ragaba wa kaanu lana xaashiin yeneen ci yàq ña àndoon ak ñoom dañ doon jëkkante jëme ci yow te mooy li yàlla wax ayuhum aqrab mi wane it yow jullit dangaa war a jëkkante ci sa ngërëmal borom bu la kenn jiitu sappe bu jëkk bu la kenn jëkk a ñëw jumaa bu la kenn gën a bari lu muy def ci lu baax ci ay azkar ci jàngal quran ayuhum aqrab waaye boole ca nag yaakaar yërmande yàlla boole ca ragal mbugalum yàlla sunu borom yàlla mu ne day sama mbugal ku ko xam ragal ko bokk na kuy texe di kuñ jox dal mu xel ba ragalatoo mbëggalu yàlla ba Sénégal dañuy gis waaye gars yi xam ngeen àddina lañ jëm waaye ah yàgg ngeen koo dégg am na ñeneen ñoo xam ne waaye àddina yi gàcce rek lañ bañ waaye waaye mag ñi defar nañ mbir yi ba pare ko la ko yombalal rek moo la ko nar a xañ waaw ko la yombalal ajjana moo la nar a xañ ajjana bokk na mandargay jullit ñi mooy walazina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghayru mamun mooy ragal sa mbëgalum boroom amul benn garantie bu nit mën a am bu mucc ci sa mbëgalu boroom lu dul ko ca yàlla yërëm muccal la ca yàlla yàlla musal ñu ci inna azabahu inna azaba rabbika kana mahzura borom bi nag subhanahu wa taala wëlbatiku daal di bàyyi loolu daa di ne amul benn xeet lu dul ne ñun yàlla daañ ko alak avant yowm alqiyama waaye loolu it bi charte mooy sunu borom nee na wa ma kunna muhlika alqura illa wa ahluha zalimun amul benn xeet bu yàlla subhanahu wa taala yónni yonent xeet ba bañ lu dul yàlla alak ko wala yàlla indi alak ay faagaagal leen ñoom ñëpp ñu dee wala boog yàlla wàcce ci ñoom ay mbugal yoo xam ne mbugal yu tar la borom bi ne ne li bindoon naa ko sama téere ba muy allahul mahfuz bokk na li ngeen yàgg a dégg sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ñaanoon yàlla subhanahu wa taala ne ko sama xeet bi day yàlla lu mu mën a def yàlla boo ko alak comme ni nga alagoon xeet yu jëkk ya yàlla subhanahu wa taala nangul la ko doonte ne nag léeg-léeg mu am ñu jéggi dayoo sunu borom wàcce fa benn mbugal pour lan la yàlla di wax naan wala nuziqannahum min al azabil adna duna al azabil akbar la allahum yarjiun léeg-léeg yàlla indi as mbugal ngir nit ñi dellu gannaaw amma alak xeet bi ak lu xeet bi bon bon bon yàlla du ko alak abadan yàlla na yàlla fayal ñu ko وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا
sunu boroom jalla wa ala mu ne wama mana'ana an nursila bil ayat dara terewuñu ci ñi yónnee ci ay kawteef illa an kazzaba biha al awwalun xanaa lu dul ne da ko weddi woon ña fi jiitu woon wa aatayna samuuda naaqata mubsiratan fa zalamu biha yónni joxoon nañ waa samuud giléem gu jigéen ga mu nekk luy wone ay lay yu leer fa zalamu biha teewul ñu tooñ ko ay ñu daal di koy rey wa ma nur ñu tooñ ca moom mooy ñu rey ko wa ma nursilul bil ayaati illa taxwiifa ñun yàlla nag dañu yónni ci ay aaya lu dul ngir tiital suñuy jaam wa is qulna laka inna rabbaka axaata bi nas fàttalikul bi ñu lay wax ne sa borom yàlla peek na nit ñi wa ma jaal na ruya allati araynaaka defuñu it li la nga xam ne mooy ruya cosaan na muy gént waaye day wane it ay gisin gañ la won won googe nga xam ne wonoon nañ la ko defuñu ko woon illa fitnatan li nas lu dul fitna nit ñi te won gii di wonu gént waaye wonu dëgg la mooy ba ko yàlla jëlee Makka wàcce ko Falastin yóbbu ko ca kaw asamaan ya wa shajaratal mal'una fi alquran wan gañ la woon it garab googee ñu rëbb ci alquran it defuñu ko lu dul fitna wa nuxawifuhum defuñu ko lu dul ngir tiital leen waaye fama yaziduhum illa tughyanan kabira dolliwul nit ñi lu dul ak bew goo xam ne bew gu màgg la mi ngi noonu mbokk sunu borom mu ni dara teewul mu yónni ay aaya lu dul ñu jëkk ne dañ ko weddi woon te waa Makka dañ daan ñëw ci yonent bi alayhi salaam incha allah dañ ko jàng ci kanam ah yow Muhammad nga ne dañ laa yónni waaw léegi yow bu doon ne dañ laa yónni kay léegi sunu montagne yi def ko mu dekk or makka amul ndox xotti fi ay dex wala boog nga yi kaw asamaan ñu lay seen wax seeni wax sunu borom yàlla nag ne dara téewul ma yónni ay aaya lu dul mboolem yonent yi ma mës a yónni seen xeej laaj laaj leen aaya taxul ñu gëm dama leen alak yërmaande bu yàlla am ci xeet bi tax na ba du topp dof yi ci ñoom yi nga xam ne ñu laaj aaya suñu borom wane ci benn preuve waa samuud ñu ngi nii qawmu saalix yàlla yónn saalix ñu weddi ko soo bëggee nag ñu gëm la montagne bi itim dëkk bi fexeel gileem génn ci bu ci gileem génnii ñu xam ne li ngay wax mën naa nekk bu ñu dee yàlla danañu dekkal ñu xam ne it li nga wax ne yàlla mu réew ni dëgg la sunu borom yàlla ne ko saalix wooteel ñu woo tund yépp gileem ne bu xëyee ci biir montagne bi gaa yi ndax gaa yi waruñu woon a gëm waaye ñoom ñëpp ñu ne xëy waaye ngóor si réew njabar waay kon it yow yonent bi lu moo la mën a defal dañ naan ak njabar la loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne du ma yónni ay aaya lu dul ngir tiital samay jaam ca comme niñ ko waxee woon it xeet yu jëkk yi moom yàlla di leen ca alak am na xeet bii léeg sunu borom indi ay jalgati tuuti ci doxalinu àdduna bi loolee pour tiital nit ñi la masalan yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ngay gis ne ibrahima alayhi salaam doomam ja bam faatoo dafa tombeeg jant bi suux mu éclipse solaire suñu mag ñi di ko wax jàpp nañ jant bi ñi xamul dara naan hee asamaan sax naqarlu na dee ibrahim comme ni ma dégg daf yi caamil yi wala bu ma tooñ sax caamil yi mooy caamil samay mbokk yu baax lañu xaw ma musuma gis caamil bu yéefir yal na yàlla bala ñoom ñoom càjjana yu kawe ya waaye maa ngi wax kon ñi xamul rek ñu naan taw bi am nii day wone ngóorug Macky Sall gi dafay sedd kaza wa kaza yaa xëy ci mu laan suñu borom di taw ay tawam taw hors saison yi ba mu commencé Macky Sall juddoogul su ko defee yonent bi alayhi salaam da dafa taxaw ba mu jiite nit ñi ci liggéey ba pare mu ne leen hey jant bi ak weer wi kaw tii fi borom bi lañu duñu suux ngir juddu kenn wala de kenn su ngeen ko gisee tiit leen jëm seen borom ba baa yàlla subhanahu wa taala di ko jëndi loolu moo taxit jamono Omar ibn al-Khattab ma sañ toog benn tremblement de terre bu ndaw am Madina suuf bi ne rëng rëng rëng Omar daal di woote daal di ne wallahi sunu borom mi ngi ñuy tëkku am na lu ngeen sos ci biir Madina mooy sos nañ fi ay biddaaki xuraafaat waaye maa ngi leen di waatal ne képp ku ma gis nga def fi loo xam ne daa safaanoog sunna danaa la def nangam ak i nangam ak i nangam te mooy kon heure bu jalgat Amérique nit ñi tooñ nañu gaa yi sunu borom mooy borom yërmaande pourquoi mu jël guerru Indonésie gi tsunami yëngal géej gi de presque trois cent mille personnes dee ci ay quelques secondes loolu bu ko yàlla defee pour tiital doomu aadama yi la ngir ñu dellu gannaaw mooy la xëy foofu jomb ñu ñun ñu toog fii am déet loolee kon wa ma nursil bil ayat illa taxwifa lu dul ragalloo samay jaam borom bi nag wax yonent bi alayhi salaam ne leen na ngeen xam ni sa borom fàttalikal bi mu lay wax ne peek na doomu aadama yi inna rabbaka axaata bi nas gaa yi yàlla subhanahu wa taala tey jii le premier nit bi gën a kawe ci kaw suuf tey mooy Barack Obama ba jiite puissance bi gën a rëy ci kaw suuf mais ndax gaa yi Barack Obama génn na ci kàttanu yàlla laa sunu borom yàlla ko juddul sunu borom yàlla koy màggal sunu borom yàlla koy feebaral bis dana mës a ñëw ko gudd fan dégg na Barack Obama dee na delloo nañ ko boromam am déet kon inna rabbaka ahata bi nas ana ñoom Mao ana ñoom Brejnev ana ñoom Napoléon ana de Gaulle ana kaza wa kaza boo yi fi nekkoon yëpp ana ñu inna rabbaka ahata bi nas sa borom yàlla moo peeg ay jaamam ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulla shay'in adada moo peeg lépp jàll wa ala lim ñépp amul kenn ku ko rëcc liir bi juddu tey ca maternité ba ak borom téeméeri at ya kay nekk ca toolam ca biir Fuuta ak kay nekk ci gratte-ciel yi ci New York ñoom ñépp a yem sunu borom jalla wa ala inna rabbaka axaata bi nas borom boobu nag mu ne yow yonent bi li ma la woon te mooy benn guddi ma jëlalee Kaaba ga yóbbu la masjidul aqsa yéegale ko asamaan wan la fa kawtéef wala shajaratu zaqqum lii lépp defuñu ko lu dul fitna ñel nit ñi te mbokk isra wal mi'raj fitna la woon yéefir yi moom dañoo weddi jullit ñi nga xam ne dañ doon dugg ci lislaam di bay na bay na jéem a carte ñoom it bi yonent bi waxee loolu dañuy weddi mu nekk fitna tan fitna ñeel leen amma li nga xamee ni it mooy yonent bi def ne jàng ci alquran shajaratu zaqum taamul asim kal muhli yaxli fil butun ila axiri ba pare borom bi ni ci biir sawara lay sax ah taxruju min aslil jaim mi ngi génn ci biir sawara waa makk ne way kawtéef dégg leen li Muhammad di wax nee na garab guy sax ci biir sawara ku mës a gis loolu mi ngi noonu abu jahil daal di dem ne ay xaleem nañ ko defaral wogg wogg woo xam ne tàndarma la bu ñu boolee ak li nga xam ne mooy graisse ñu defal ko ay wogg yu neex mu bàyyi ba mag yi mag yi Quraysh wër kaaba gi ku nekk mu jox la as wogg nga mos ah sëñ bi li neex na di mu ne lii mooy zaqum Muhammad nee na bu ñu dee lii la ñu yàlla di jox ku ne na àll yi de neex na waay kon fa maa yasidu min tughyanan kabira borom bi nag mu ne déedéet wallahi zaqum nee na gisin nga rek ruusu ruusuha ka annahu ruusu shayatin la nga xam ne mooy bopp ba boo ko séenee dafa mel ne bopp jinne bopp seytaane gaa yi nit ki bu jommee dañ naan daa gis jinne am déet nee na zaqum noonu la doom ya mel boo ko lekkee day bax ci sa biir loolee kon borom bi mu ne dama ko def ngir tiital leen waaye ñoom dolliwu leen lu dul ak beew te mbokk gis nga sunu borom ay mbiram kenn du ko takk ci xel xale yi seetaan léeg-léeg ay documentaire lu mel ne ay National Geographic yu demee noonu dañ lay woon ci biir géej am na fa place yoo xam ne ndox mi yegg na plus de deux cent degré te am na mbindaafoon yu dëkk foofu te li nga xam ne moo nekk ci kaw nii mooy jën jën yi nekk ci kaw gayndeeg nit ak lu mu mën a doon ku ñu dugal tey ci cent degré waxuma da ngay dee waaye da ngay ñor am déet am na mindaafat yoo xam ne ñu ngi dund ci biir géej ci ndox moo xam fi de deux cent degré bokk na li tubaab yi doon xalaat mooy foo xam ne amul benn lumière dara mënu faa dund aha kay biir géej am na profondeur yoo xam ne amul fenn fukk lumière du dunde ba pare am na min am na lu fay dund kon inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla mooy def lu ko sopp gaa yi xoolal doomu aadama bi ki dee ñu ne daa am ay saan saan yaa ngi dund si biir biir bi ak biir ñu mu ñu mu tàngee ca la ñuy soso ca la ñuy màggi am fay doom am fay sët ah loolee kon ñu gis ne inna allah ala kulli shayin qadir borom bi nag mu ne leeral naa ay aaya waaye dolli wu leen lu dul beew goo xam ne beew gu màgg la mi ngi noonu وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما
سنبرم جل وعلا مني وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم fàttalikul bi ñuy wax malaaka yi sujuutal leen ñeel aadama fa sajadu illa iblis malaaka yépp sujuut ba mu des iblis qaala a asjudu liman xalaqta tiina mu ne ndax yàlla man dinaa sujuutal koo xam ne ban nga ko binde qaala araaytaka haadha alladi karramta alayya mu ni ndax gis nga kii nga xam ne yaa ko teral ci sama kaw la in axartani ila yawmi alqiyaama soo ma yeexee bañ maa rey ba bisu penc taxaw day la ahtani kan na su boobay day danaa wëlbati zurriyatahu njabootam nga illa qalila lu dul loo xam ne nii lu néew lay doon mooy danaa leen not qaala zahab fa man tabi'aka minhum mu ne ko demal képp koo xam ne topp na la ci ñoom fa inna jahannama jazaa'ukum seen pay mooy sawara te jazaa'an mawfuura pay la goo xam ne gu ñu matal sëkk lay doon wastawziz man istataata minhum bi sawtika mooy demal na nga xiirtal ku la neex ci ñoom ci sa kàddu gi wajlib alayhim bi xaylika wa rajlika ca it na nga dem na nga yëkkati daa di sànni ci ñoom mooy doxal ci ñoom la nga xam ne mooy say borom fas ya ak say borom tànk ya mooy say fas ak say tànk wa sharikuhum fi l amwal te nga bokkee ak ñoom ci seen alal ay bokkal ak ñoom ca alal ja wal awlaad bokkal ak ñoom ca doom ya waiduhum te it yow na nga leen dikk wa ma yaiduhum sheytaanu illa gurura doonte ne sheytaane du dikk jaami yàlla yi dudul ak wor inna ibaadi nag laysa laka alayhim sultaan samay jaam moom amoo ci ñoom benn kattan wa kafa bi rabbika wakila doy na sa boroom rek koo xam ne ci ku ñuy sukkandikoo la rabbukum allazi yusdi lakum alfulka fi lbahr yàlla seen boroom mi nga xam ne moo leen di jañal di leen puusal gaal ya ci biir géej li tabtahu min fadli ngir ngeen sàkku ci ay ngëneelam innahu kaana bikum rahima seen borom yàlla ci yéen de ku am ci yërmande la mi ngi noonu mbokk benn jataay ngi nii sunu borom nettali nañ ko juróom ñaari yoon ci téeréem bi fii lan nan lañu ko fi nettalee mu ne bis am na sunu borom bind sunu bay aadama ngalawaay jàngal leen seen doom yi ne lañ leen di jàngal ca école ba du dëgg te mooy doomu aadama mi ngi am ci li ñuy tuddee évolution jaar na fii jaar fii jaar fii jaar ci golo doog a nekk doomu aadama loolee kéeféer moo ko moo ko tëral amma sunu borom moo bind aadama alayhi salaam mu nekk nit ku complet daa dina ay malaakaam su juutal leen ko malaaka yépp daa di sujuutal aadama alayhi salaam mu nekkoon benn ndigal bu ko yàlla wu leen yàlla jox ñuy wone itamit ne loolee nga xam ne sunu borom yàlla santoon na koy malaakaam ñu def ko loolu ñun dañ koo aaraamal ci ñun sunu xeet xeetu yonente bi alayhi salaam du ñu sujuutal ku dul yàlla muhammad alayhi salaam li muy màgg màgg kenn du ko sujuutal kon ñu sujuut bam des iblis iblis du woon malaaka suñu borom wax nañu ca kahfi kaane min al jinn jinne la woon waaye yàlla may na ko muy naaw kaw asamaan di déglu malaaka yi di ànd ak ñoom comme nañ koy jàng suratul jinn suñu borom yàlla na ko waa iblis du tax sujootoo ah mu ne yàlla kii nga may sujutloo lu tax ma koy sujutal ndax man dinaa sujutal koo xam ne ban nga ko binde yàlla kii maa ko gën loolu mbokk li ñuy wone mooy kon yàlla da nga juum am déet da ngaa juum parce que yàlla kii maa ko gën sunu borom yàlla subhanahu wa taala danañu nettali yeneen détail ci yeneen saar waaye fii moom daa wax rek dialogue iblis iblis bi mu ne yàlla kii maa ko gën sunu borom yàlla daa di koy xamal ne ko da ngaa juum gënale naa ko sa kaw dàq naa la sama yërmande iblis daa di mer daa di ne yàlla gis nga kii nga teg sama kaw soo ma faatul day bàyyi ma mu dund ba yowmal qiyaama dana ngalaab mooy not ak njabootam ñoom ñépp yóbbu leen sawara ba mu des lu néew lii mbokk sunu borom yàlla nee na bi ko iblis bi wax da koo jortoon rek wax ko mais xamul woon ne mën naa am laqad sadaqa alayhim iblis zannuhu zannuhu mooy iblis ki nga xamee ne nii mooy lam jortoon dëggal na ko ci ñoom looloo tax mbokk jullit yowmal qiyaama junniy nit yu sos cosaanoo ci aadama neuf cent quatre-vingt-dix-neuf yépp topp nañu iblis loolu la yonent bi alayhi salaam wax danaa not mbo ay njabootam lu dul lu néew illa qalila sunu borom yàlla nag subhaanahu wa taala ni ko demal ku la topp ci ñoom gis nga li yàlla wax de ku la topp ci ñoom kon ndekete yoo te mbokk iblis kan la mën a yóbbaale sawar mooy ka topp iblis ka bàyyi yoonu yàlla topp iblis ku la topp ci ñoom day sawara mooy seen wàccuwaay te sawara dana doon lu mag sëkk ci pay léegi nag sunu boroom wax ñu ay fiiram ah tey bu benn waay jógoon jëm ci kenn da koy avertir ah nga ne yow man nga da nga bëgg a rey diw wala da nga ko bëgg a duma waaw demal yat woowu nga bokk ah ak jaasi jooju nga yor ak nangam jooju loolu yaa ngi avertir noonu ba mu jëm ci moom ci ne sa waa ji gànnaay yi la yor am déet looloo tax sunu borom dañuy wax gànnaay yu iblis mu ne ko iblis demal léegi na nga not ko la neex ci ñoom jëfandikoo sa kàddu gi gaa yi kenn ci yéen nga mos a dégg kàddu iblis ah mu ne iblis a ngi wax de kon lan mooy kàddoom kàddu iblis mbokk mooy bépp kàddu bi woote ci shirk kàddu iblis la bokk na bépp kàddu buy woote ci fisq muy ak kàccorte kàddu iblis la loo tax ku mel ni mujahid nga xam ne bokk na ci mufassiruna yi gën a mag bokkoon ci taabiina yi nga xam ne ci saxaaba yi lañ jànge moom dafa daan wax ne muy musique mooy sawtu shaytaan nee na mooy alxina muy ay woy woykat yi nga xam ne dañuy woy ci caaxaan yépp seytaane la ñuy wooteel ca loolu da ngay gis ne ñoom ñenn ci ñoom sax reconnaître nañ ko ba ñu bari ci ñoom bu weeru koor jotee dañuy arrêté seeni woy am déet am na benn waay bu ñëwee ci këru diine la cosaanoo ma sa fi indi benn débat national pourquoi weeru koor ngeen di arrêté seen way te da ngeen di liggéey liggéey jaamu yàlla la gis ngeen mais même ñoom caaxaankat yooyu xam ne ñakkat du seytaane la gars yi boo demee fa ñuy wooyee loo fay gis jaxasoo góor ak jigéen sàngara nga fay gis caaxaan bu dul jeex ndax da nga fay gis ñu ne qaala allah qaala rasulullah abadan kon jëfandikoo li nga xam ne mooy sa kaddu gi donte ne ni kaddu googu danay tasaaroo bu baax ba tey mbokk li ñu yàlla nattoo suñ jamono yi tey téeméeri rajo juróom benn fukk ñi ngi émettre vingt quatre sur vingt quatre ngallaawaay jullit moytu leen di leen topp boo leen toppee daal li indi li ñu tëddee al ghafla ghafla mooy lan masalan xoolal démb rek journée démb bi journée bi yépp ñi ngi koy def ci xaar gouvernement bi kanay dugg kanay génn rajo yi yépp mbokk loolu ban njëriñ la am fii deux jours nañ ko xam pourquoi ñu bëgg show show bi mën na la commentaire yu dul jeex lu tax loolu mbokk boo ko toppee da lay jural al ghafla jullit sa xol bii da ngay war a xool foo koy jëfandikoo sa nopp yi da ngay xool foo koy jëfandikoo sa temps da ngay xool foo koy jëfandikoo tekkiwul ne bul bul bul bul fexe am information waaye na nga ko jox lu nekk ak xam jël ko ci juste mesure am waaye jël des heures et des heures jagleel ko ko xoolal ndax loolu jagleel nga ko sa téere borom bi. journaux yi nga gis koo xamante na jël deux heures de temps plein sëgg ko énergie bëtam tension loosam lépp mu sëgg ko ci benn journaux est-ce que loolu jagleel na ko téere borom bi waxumaa nag xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loo xam ne bés bu ne bés bu ne loolee mbokk da ngay gis na seytaane moo koy def ngir nax doomu aadama yi bëgg profité ci ñoom jëfandikool sa kàddu gi loolu mooy bànneex gannaaw ba jëfandikool force te mbokk seytaane ñaari yoon yooyu la am mooy li ñu tuddee carotte ak cravache jëfandikoo sa doole ca mooy dëkk yu bari da ngay gis na mbokk jullit dañ leen di bundu xataal kenn du fa jaamu yàlla tey ji boo demoon ci ay russe boo demoon ci yougoslavie yougoslavie amoon na ay temps benn këyitu alxuraan bu ñu la ko gisee égal dix ans de prison amoon na ay temps xale bu ñu gis ngay propagande woo nit ki ci l'islam égal prison à vie loolee kon da ngay gis ne jëfandikool ñii war fas ak ñii war tànk loolu mooy jamono bu njëkk ba ba doon tayee jëfandikool say char de combat jëfandikool say ëwax jëfandikool say nangam ngiree xeex ak jullit ñi mooy bomb yi ñuy dóor ci Afghanistan bomb yi ñu doon dóor Irak bomb yi ñu doon dóor ci li ñuy tudde ñoom l'axe du mal foofu foo xam ne jullit nekk fa yéefir dañ leen jëme xeex ngir fay lislaam képp koo xam ne nag fitna yu tar yooyu tax na ba nga topp seytaan na nga xam ne yow seytaane am na dëgg ci yow amma julit quel que soit fitna bu ko mën a dikkal ci noonu yàlla yi day gën a dëgëral ngëmam sunu borom ne ko alal jàngook demal bokk kook ñoom seytaane na muy bokk yow sa alal alal boo fagg fagguwun wu daganul yaag seytaanee ko bokk li nga faggu cam dagan boo koy dépensé ci lu yàlla gërëmul yaag seytaanee ko bokk jànguñu ko ca gannaaw wa innal mubazzirina kaanu ixwaana shayatin sunu borom nee na yàqkat yi ay doomi ndey seytaane la loolu it nañ ci bàyyi xel bu baax bokkul ak ñoom alal ji benn jigéen a ngi nii ci li xew Sénégal masalan boo xooloon tey jii at mi yépp ñaata la ci sarxe mën na mat na mille cinq cent xëy na ndax sarax nu gëmba bee vingt cinq kee nangam kee nangam am na benn jataay xew am mu daal dina bëcc téeméeri piis deux millions ay chaîne or jox naa bàjjan tel décoré naa géwél tel décoré naa góor jigéen tel décoré naa nangam tel mbokk loolu mooy yàq loolu mooy puukaréew loolu mooy mbokki ndeyu cheytaan innal mubazirin kaanu ixwaana shayatin doom yi na ci seytaane di ànd ak ñun bépp doom boo jël fexe woo ba mu xam sa boroom fexe ba mu réussir ci àdduna kooku yàgg seytaane ko bokk am déet yeneen ci bi alayhi salaam it daan ñu wax ni kenn ci yéen balay ànd ak soxnaam na wax bismillah yàlla yàlla na ñu soril seytaan soril seytaan loolu ñu mën a wërsëgal sunu yonente alayhi salaam nee na doom boobu seytaan du ko mënal dara abadan dañuy góorgóorlu di ko bañ a fàtte ni ngi noonu na nga bokk ñoom alal jeeg doom yi gannaaw ba it na nga leen dig lu leen neex waaye seytaane du digal lu dul ay wor loolu tax bu dajeeg gaa ya ca safara yàlla na yàlla musal ñu ci gaa yi ku nekk naan mën di diw ma réeral diw ma réeral diw ma réeral ba mu dem ci seytaane mi nga xam ne ku réer moo la réeral dana jóg nag taxaw ne hé gaa yi fala talumuuni wa lumu anfusakum bu leen ma yedd kat yedd leen seen bopp inna inna allaha waadakum waada alxaq wa waadtukum fa axlaftukum yàlla digoon na leen dëgg ma dig leen ngeen bàyyi diggu yàlla topp sama digg tey nag njóoy naa leen mën na lu ma leen dara mën na lu ma leen dara jeex na gis ngeen lu dul ne digal ku la neex seytaane du digal lu dul ay wor amma samay jaam gaa yi ñen ñooy jaañu borom bi mooy ibaadu rahman yàlla na yàlla boole na ci mi ngi noonu inna ibaadi mooy samay jaam sunu borom yàlla mun a amoo ci ñoom benn pexe lu tax mooy samay jaam dañuy wékku ci man wa kafa bi rabbika wakila looloo tax ba mbokk jullit da ngay gis ni ab jullit day fu ma toll tawakkaltu ala allah ci yàlla rek lay wékku wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu wékku ci yàlla yàlla day ko léegi avant ñuy jàng sunu téere lu njëkke auzu billahi min ashaitan rajim ñi nga làqu ci yàlla ngir mucc ci pexe shaitan moo tax sunu borom ne ko in ibadi laysa laka alayhim sultan samay jaam moom mënuloo leen dara borom bi nag ne doy na yàlla muy aji wékk wàkkirlu yàlla moomu mbokk moom mooy kan mooy ki nga xam ni moo ñuy fegal moo ñuy puusal suñuy gaal ci biir géej ngiree ñuy sakku ji la nga xam ne mooy ay ngëneelam tey jii dañ naan la Sénégal lu fiy dugg quatre-vingt-dix pour cent ba ci géej la jaar bato yi li ngeen di lekk oto yi ngeen di dawal lépp ci géej la jaar loolu kàttanu yàlla la mu tàggat ak géejam kàttanu yàlla la tàggal matériel am xelal ni bañ man caa jaar sunu borom yàlla mu ne ku am yërmande la ci yéen su ko neexoon géej kenn du ci jaar te kon kon duñu am dara ku mel ni imaamu Malik ak borom xam-xam ya ànd ak moom dañ doon wax ni lay musale ci géej mooy nga am gaal gu baax waaye liy musale itamit adduna nga mën a mucc dem aljanna mooy nga dugg ca gaal ga lan mooy gaal ga mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy safinatu nuux ku ci moy mucc nga ku ko bàyyi jaar feneen da nga lab yal na yàlla musal ñu àdduna ak alaxira boole ñoo gëneen ci bekki sahabaam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad jiitu ñuy jël lenn lu ñuy laaj ñi ngi doon wax rek amoon nañ fi benn tawat ci ordinateur jàkke yi nga xam ne yàlla dafa dogaloon ñu jël ko alhamdulilah am nañ ordinateur bu bees ñi nga xamee ne nii ñoo ci amoon yéen ñépp yal na yàlla mottali seen yéene yal na yàlla fajal ñu suñuy aajo adduna ak alaxira te it xam ne ay jurit li la ñuy jëriñ mooy heure bu ñu dajee ci mbooloo suñu waxee bu kenn defee rek yéene ba day yóbbaale ñépp loole kon ki nga xam ne sabab na ko ña nga xam ne ñoo ci dugal seeni dërëm ak ñaar dërëm lépp yal na yàlla def ko fajug aajo adduna ak alaxira incha allah waaw day mbokk yi am nañ ala kulli xaal dafa dégg ne ñu ne yonent bi alayhi salaam ay waajuram dañuy dem safara ay mbir la yoo xam ne xëy na bu dul wane dañu ko laaj bu ñu koy wax waaye li wér ci wér mooy wér na ci saxiixu muslim soo demee benn waaye ñëw na ci yonent bi alayhi salaam ne ko ana sama baay mu ne ko sa baay mi ngi safara waa ji mer na ko waaye yow nag ana sa baay mu ne ko sama baay ak sa baay yëpp ñu ngi safara loolu moom wér na ñaareel bi yonent bi alayhi salaam mas na ànd ak saxaaba yi ci tukki diggante Makka ak Madina ñu jàdd benn place mu ñëw toog ba yàgg muy jooy saxaaba yi këwër di jooy mu ne lu ngeen di jooy ñu ne ah dinaa gis ngay jooy ñuy jooy mu ne kii sama yaay la dama ñaan yàlla ma ñëw ziar ko yàlla jox ma ndigal ma ñëw bi fii ñaan yàlla yàlla pour jégal ko yàlla jox ma ci ndigal loolu da ngay gis ne loolu moom nekk na lu wér donte ne ni soo demoon fu mel ne ay bay xaq yi ak yeneen ñu ngi génn yeneen xadis yi wax ni yàlla daf leen dekkal ñu daal di tudd dugg ci lislaam ñëw na daal ay mbir la yoo xam ne ni amul nu muy jëriñ suñu wàllu diine loolu moom nañ ko xam wallahu subhanahu wa taala alam yàlla gën a xam ay jaamam mi ngi noonu wallahu alam naam mbokk bisimilah waaw ndax damay jënd carte crédit da ci am ay loo xam ne nii dama ci gagné mbokk julit loolee ay façon carte la yoo xam ne dañ koy dugal ci bopp nit ñi julit dafa war a moytu bépp façon loo xam ne nii ay façon carte la ay xoose ki jooni jone kaza wa kaza wa kaza yow daal sa carte nga jënd jëndal sa carte la ci sa crédit jël ko am maa nag xoos ay xoos di yónnee ay numéro kaza loolu nekkul loo xam ne nii loo ko mën a nekk di ko layeele jullit daal mbokk jullit du carte ka la yéene woo la may la dalaa yéene woo la may la mais lépp loo xam ne da nga koy def di carte di ci gagné jullit dafa war a moytu xaalis bu mel noonu nekkul loo xam ne lu lislaam gërëm la wallahu subhanahu wa taala alam ah bismillah leb ca banque ba xaalis bu ñu ma lebal moto ala kulli xaal mbokk bépp bor buñ lay lebal bañ la koy lebal ñu ne la booy fay si da ngay teg ci bor bu dara loolee borub riba la ab jullit warul dugg ci loolu mi ngi noonu lu dul loo xamee ni nii ab lor la boo xam ne mun te ñàkk lu mel ne waa ji tëdd ci la hôpital ba xëy na il faut mu indi lii sunoo day dee am maa damay jënd moto ubbi magasin damay nangam ak damay nangam warul tax abadan julli dem ci banque dafa leb xoo xaalis boobu te expérience biñ ci jot a am mooy xaalis boobu barkeelut xaalis boobu barkeelut ñi ngi gis ñu dugg ci ñëpp dañu mujj am ay problème leb banque pour liggéey dafay intérêt xaalis boobu barkeelul lii maa leen wax lii ñu noonu sañ Adi Diop ca Pikine oustaz boobu mag xale yi xam nañ ko déggan mag ñi xam nañ ko am na benn waay bu ci doon dugg mu tere ko ne ko xaalis barkeelul de waa ji amoon na magasin fii ci Sandaga waaye bu mu dëgëre bopp ba dugg ci dafa mujj fayit mi ngi noonu ala kulli xaal yàlla arama rek baaxul ci julit mën na jëriñ nag ab yéefér ab yéefér mën na ca réussir mais yow julit bu sell bi boo dugg ci loolu rek bu wutal yàlla duma la pour nga dellu gannaaw kon nañ jéem a seetlu dagan ñu moy ci bañ a yàkkamti suñu wërsëg mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw waaw waaleykum salaam wa rahmatullah waaw wa ala kulli xaal bu ñu tuddee ba ne finance islamique mooy wér na ne loolu dafay doon lu dagan la amma bu dee li ñu xam ci banque nañ ko tuddee l'islam nañ ko tuddee christianisme lu ñu ko mën a tuddee ñoo xam su dee ne principe bi mooy da nga may lebal te man bu ma lay fay danaa la fay tegal la loolu day nekk riba amma am na ay xale yoo xam ne avant ñuy wax problème ñuy dugg ci kii boobu sax ay xale yoo xam ne waa AMS yi ubbi nañu ay benn ay banque am na benn bu nekk fii ci police bi ñoom lañ ko tuddee mooy banque islamique te loolu lu mu mën a demee rek mooy lu tuddee mudaaraba mudaaraba mooy lan mooy kii da lay lebal ngeen d'accord ci gañaay bi d'accord ci risque bi su boobaa nekkul dama la jox un million nga war a indi un million deux cent mille wala un million cinquante mille waaye dama lay jox un million ñu ubbi projet léegi luñ ci gagné bu dee nangam la ñu séddoo ko pertement bu ci amit loolee nekk suñu diggante ñu ñëpp ñu ñu supporté ko lii daal mooy la nga xam ne lislaam xam na ko yàgg na mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa mbokk comme dafa xaw a guddi am na benn mbokk bi wax rek naan pour ñu ñaanal ki nga xam ne mooy mbay ñang boobu ndax dafa am benn code de la famille bi ñu fiy defoon code islamique nee na daf koy bëgg a def projet de loi ragal nañ ne gouvernement bi bu ñu ñëwee dañ ko saxal ala kulli xaal ñu ngi ñaan yàlla yàlla subhanahu wa taala dolli ñi dolli goo xam ne suñu wàllu diine lay doon mi ngi noonu ca mosol ñu ci lépp loo xam ne daf ñuy delloo gannaaw ñaareel biir am na mbokk bi wane ni am na ay mbokk yu ubbi benn juma ci Mbàkke ajjuma ji di ñëw ñu ngi leen ci ñaanal yàlla yàlla na yàlla ko def muy jumaay sunna def ko jumaa boo xam ne dañ ko fondement ci ragal yàlla yàlla def ko jumaa buy woo nit ñi dugal leen ci gërëmam mi ngi noonu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad